asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy suivre un peu partout dans le monde entier euh, ñi ngi ni fii quartier Diapo nekk 29 angle 20 euh, groupe Mbappé moo ñu fi woo muy seen cant annuel mais ren nag dañ ko tuddee suñu grand bu baax bu fi jógee ñu tuddee ñu naan ko grand baxa muy grand bu baax cant bi nag commencé na léegi dañuy dugg ci biir jëlal leen tuuti sigar ngeen ci ànd ak seen doomu ndey Lawdar groupe Mbappé ñoo wootee mooy doomu ndeyu Bamba Fall xale yi ñoo woote xale yi nga xam ñoo bëgg Medina xale yi nga xam ñoo bëgg seen diine xale nga xam ñoo bëgg seen aada ñii la ñuy ñooy booy groupe Mbappé ñu dugg xool ñu jël turi sikar teewaay bi nag dara waralu ko lu sunu sang sëñ Mourtala mais toog Serigne Saliou mu sëñ Lamine mu sëñ Mourtala nga xam ne bés bi daf na cee yàgg topp waa saa bu jotee rek day tombé may may gisee ci salaam bi ba mënu ma cee teew moo tax tey na ñu ne lu mën a am dañuy jaayante rek teew loolu képp moo waral ak yëg-yëg gi gars yi am si sunu diggante ñoom moo waral tey ñu jaayante ba teew ci bis bi. ñu gis tey nga ñëw yëngal euh, kuréel bi yëngal Medina mel ni comme si que Medina nga dëkk lu waral loolu la mooy secret bi. waaw secret bi mooy mën rek bu ñëpp di wër fexe la mën rek. tarbi tarbi yu mbiri ci quartier da nga koy tarbiyu daanaka kenn ku ci ne kan bo gëmé li ngay def rek suñu borom dina la ci dolal katanal lako man dama nan ci kat mom bo yemee ci gox rek jappal ni tojoo da nga wara xoss ndax bamba ja da yor du dugg ci gox yi di ko tas ndax Medina mom wa deug ne yalla duma ma fi gan tay ndaanaan ndaanaan bu ne daje naa fenn moom waaw ndaanaan boo xalaat muy Mandiaye Falaki mi Ndogo Afia ñoom ñëpp daje nañ fu ne bokkundoo di liggéey ci festival Salam di daje fu nekk waaw kon bu ñëwee Medina war naa mën a yëngu waaw. boo ko doon tëj loo koy waaw ñun day fi mu ne nii xaaral ñu tëj ko. généralu Bamba yow borom daaru Mbakke amoo adee borom daaru maa ngi ñaan nag ci barke Serigne Touba seen site bi yàlla na ci Serigne bi def doole kattan ko doon ay télé maa ngi leen yëgal na sama bis bi Sorano bëgg naa yéen ñëpp ngeen teew incha allahu rabi bu san defee ñu sant Serigne Touba. Mbacke ñu ngi ziar bu baax. ñu ngi leen doole ziar bu wér. lan mooy sa diggante xale yi xale yi secret bi secret bi ak sa diggante ñoom parce que loo wax rek ñu ne la Mbacke Mbacke Mbacke rek. ah ñun de dañoo yàgg dëkk rek te soo xoolee ñun naa bi fii lañ juddoo. te suñu mam fi la dekk ñom tamit dañoo yarando ak ñom te yag nañu dekk fi ni ci Médina te xalé yu yar lañ yu bëgg lu baax li nak dafa nekk lu rafet lo xamne ñom mën nañ sey juggé ñu dé ñu xamal leen seen diiné xam lu bari ci yoon bi pour ëlëk ñu mën koo jëfandikoo fu ñu dem rek mën fa nekk lool mom amna solo lool. tey doon dégg loolu la ñuy dénk ñoom. ah li mu leen dénk mooy ñu góor góorgóor rek farlu si liggéey ak jaamu yàlla lu seen yoon nekkul rek ñu ñu maandu sa te jàpp seen njàmbur ndax jamono ji dafa jamono jamono joo xam ne jamono ji doy waar kon nit ku nekk war nga téye sa bopp xam li la war rek nga koy def loolu daal mooy li nga xam ne mooy li am solo li si des yëpp bàyyi si loxo suñu boroom rek. ren ñu tafantal ko tuddee ko suñu nijaay baax joo muy baxa. ko bés bi ban cofeel nga ci ko ñaanal rek ndax àdduna moom moo di demee demal maa ngi ñëw rek la ndax ku bas bakkan bu mos dund rek bis a ñëw nga mos li nga xam ne mooy dee kon amul lu dul ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko rek xaree ko sa àjjana yu gën a kawe rek di ko di wax ni ñëpp ñu koy ñaanal rek ndax loolu rek moo fa am solo fu mu ji fu mu loolu rek moo am solo foofu fi nga xam ne moom la jugee fu mu fu mu jëm gënal ko foofu rek si baagi Seexul Xadim yàlla ko yàlla yërëm daal ñu ngi koy ñaanal bu baax nag ñu ngi koy ñaanal ndax gisoon nañ taxawaayam si li nga xam ne moom lañ nekk di def nii mooy cant gi. ñu ngi lay jaar. maa lay dolli jaar baax baax. waral tey teewaay. waaw bi ci njëkk mooy ñëw ngir kóllëre ñëw ngir sëñ Touba ñëw ngir dëkkandoo ak suñu diggante xale yi tamit relation bu rafet mu am ci ñuy def cant kafe gi. Euh, yëgal ñu ko bu dul woon dara war nañoo teew ngir quartier bi sëñ tubaa mi tax ñu koy def te ñuy tudd tudd sëñ Touba waaw. ren ñu ko Baxa. waaw mu image boo xam ne kenn du ko fàtte na doon jàmbaar joo xam ne moom Baxa da doon nit ku baax di ko yaru ko am taalibe ci fi mu bokkoon di waagat Cheikh na Cheikh Sadbou ñu ràññee ko ci ndax farloom ak taalibeem ca kër ga ak bëggam digganteem ak dëkkandoo yi rëpp lépp rafet ndax man mi rek joxoon na ma cër boo xam ne yàlla rek a tax ma koy wax fonkoon na ma jàppoon na ma daf ma joxoon cër lool bëgg ma fu ma gis sama daan bëggee kon xale yi dañoo dañoo fàttewul démb ndax tey jii bu ko fekkoon da ciy def lu am solo nam daan taxawee ndax maa ngi dégg léegi sab seede ci baas bi ne xale yi cant gi ren danoo wét ngir xam ne seen waa ji laan wettali gisuñu ko ma nekk àdduna moom noonu rek la kenn du fi des mu yeex mu gaaw yàlla def lu ko soob mais nag fa mu tëdd tey yàlla na fa gisee ak sëriñam ba maam Cheikh na Cheikh Saad Bou njaboot gi mu fi bàyyi ak soxnaam ak i doomam yàlla teg ci ñoom loxo ah, ba yaakaar bañ a tas jëm mais xale yi def na lu rëy parce que fàttewul bi mu fi jógee yàggul waaye ñoom it fàttewul lan lan sëq kon mun defee lu baax la delloo ko lépp mooy kóllëre rek te kóllëre ëllëg yàlla koy laaj te yàlla na ëllëg ku ko dog ma dog la yàlla leen yàlla fay yéen itam suñu borom defal leen xéewal caméraman bi presse beeg yëpp sëñ Touba defal leen ndam barke maam Cheikh Anta. waaw Mbacke ñu ngi lay ziar. waaw xanaa ñëwaat seet si waat samay mbokk taalibe te yàgg ko def ak ñoom jamono bu nekk suñ borom di ñu may ñu koy fekke waaw waaw loolu rek moo waral teewaay xool si waat mbokk taalibe ak toogaay. waaw xool si waat njaboot bi waaw waaw waaw loolu moo waral teewaay bi. ren ñu tuddee ko suñu nijaay Baxa mi xam ne moo fi jot jamono yi. waaw ñu tuddee ko ren euh, yi lan wax ci Baxa. waaw xanaa euh, mu doon koo xam ne nii ñun ñëpp amoon na ci ñun euh, xeetu xeetu yëg-yëg boo xam ne amoon nañ ko ci moom ñun ñëpp mu doonoon ko xam ne ku baax la woon amoon taxawaay bu rafet waaw ci ndaw ñi yëpp ci gox bi yépp kon rafet na nag bu dëddoo euh, xalaat bi ndaw ñi daje jëme ko ci moom rafet na ñu fàttali ko ko ci lii rek moo waraloon euh, yëg-yëg bi mu amoon ci suñu diggante moom lii rek la doon xaar waaw bu fi ñu koy fàttali ko waaw bu fi ñu koy fàttali ko duñ def lu rafet lu daal ak ni ñaan tamit suñu borom gën a yokk góor yàlla yi ay jàmbaar lañ ndax jamono bu nekk saa boo ñëwee gis mbir mi ni ñu koy gën a da ngay xam ni ay jàmbaar dëgg lañ contentement daal lañ amee waaw day sant nag Serigne Touba bu baax di ñaan mu sax saa su nekk bu dee di ko teewee kenn bañ a manqué waaw ci barke Sëñ Fall. tey boo ko doon tëj Touba maa si dénk ñun ñëpp mooy topp yàlla ragal ko liggéey maandu waaw waaw jàpp sa njàmbur waaw waaw waaw waaw waaw def def def def li nga war a def li nga war a def bu ko def loolu rek laay dénk ndaw ñi waaw sëñ Fallou danaan wax naan ñu naan la ñu naan la luñ la tagg-tagg du la jëriñ dara mu ne luñ la xas xas tamit du la wàññi dara na nga fexe ba li nga war a def nga di ko def li nga war ta def bu ko def loolu lay dénk ndaw ñi rek li ñu war a def daal nañ ko def li ñu war ta def buñ ko def. tey ban yëg-yëg nga am tey bés bu ñu tuddee sa frère muy bëgg mu jóge fi démb rek ñu koy jooytu noppeeku ñu. waaw kontaan rek jooy bay bëgg dee xale yi li nga def nii sedd na suñu xol torop torop torop ba di ñaanal bu déwénee na yàlla ñu mën di ko ëpp kontaan si ñoom rek man ba ma ñëwee ba léegi maa ngi jooy ndax xamoon ndax ñoom am nañu xel boobu bëgg nañ seen nijaay man daal mënu ma wax daal sama xol dafa fees may kontaan si ñoom rek di ñaanal Touba. jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba. jërëjëf Cheikh Bamba Khadim Rasoul. jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. gàcce ngalaama maam Cheikh Ibrahima Fall. gàcce ngalaama maam Cheikh Ibrahima Fall. est-ce que sëñ Afia Mbacke ibn Lord. la ilaha illallah पर न मां sëñ Fallu la yàlla faale la ngeen ko faale ku faale wul sëñ Fallu bu leen ko faale Sëriñ Afiya Mbàkke la yàlla faale na ngeen ko faale থাকে got uh, Afia Afia bismillahi rahmani rahim Afia wa sallallahu taala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman Afia Allahumma kulli karimin akramu لو تكرموا حسم لو كل قال إيماني ملازم اللسان borom Touba amul morom ko am morom mu sa borom ko am morom borom borom Touba baal jana neex ma Seex Fallu neex ma Seex Fallu neex ma Seex Fallu neex ma Seex Fallu ana soppay Fallu ana soppay Fallu dama bëgg na ñëpp jug ñu màggal sëñ Fallu na ñëpp jug ñu màggal sëñ Fallu neex ma Seex Fallu neex ma Seex Fallu ana soppay fallu nanu màggal fallu yaa bëgg fallu yaa bëgg fallu yaa bëgg fallu ngay yaa bëgg fallu yaa bëgg fallu fallu ana soppay fallu yaa bëgg fallu nanu màggal fallu ana soppay fallu soppay fallu nanu màggal fallu nanu màggal fallu ana soppay fallu yéen a bëgg a fallu yéen a bëgg a fallu yéen a bëgg a fallu ku sopp Serigne Bamba jugal màggal ko ku sopp Serigne Bamba jugal kennal ko ku sopp sëriñ Axma Mbàkke jugal màggal ko màggal ko ku sopp sëriñ Axma jugal kennal ko nag ñu defal nooru ala nooreyni dama bëggoon wasaxa datul daareyni defal nooru ala nooreyni vai. mu sëñ Fallou fay jugal magal ko magal ko mu jox mu sëñ Fallou jugal magal ko magal ko mu jox jugal kennal ko Seex Makumba borom jugal Baye Galas Mbacké ku ko bëgg ku ko bëgg Galas Baye Galas ku ko bañ maa ko bañ Galas Baye Galas ku soo ko Baye Galas ku ko ku soo ko ku ko gën Thank you. délégation ñu di ko def chaque année buñ koy def dañuy def délégation ñoo dugg ci koñ bi bigal ko waa koñ bi kon rafet na ñuy teew ndax suñu njaboot la looloo waral sama teewaay. waaw dañuy sant yàlla ndax Bamba Fall tey lii yëpp moom la ndax xale yi. Bamba Fall moo leen yegsil fii ndax da leen jël def ko kon njabootam def leen ay kon ay doomam jël leen ñuy liggéey di leen fay weer tey jii bu ñu mënee taxawal bés bi monsieur le maire moo tax ñu taxawal ko ñun tamit ñu bokk nouvelle vision tey ndax day rafetaat ñu ñëwaat taxawaat fi ñaari yoon ndax ñun Bamba Fall moom la ñuy ndamoo moo ñëw Medina defar Medina. yaa ngi dégg kon nag bu wootee ay élément bu ñu wootee tey élément Bamba Fall rek ñoo fi nekk tey boo duggee fii xam nga ne élément Bamba Fall rek moo fi nekk ñu koy xaar nag mu ñëw ci jàmm ndax moo ñu jaral ñu toog ba heure bi du ko xaar. ban satisfaction nga am ci troisième édition bi. troisième édition motivation ma jàpp mooy bu ma xëyee tey suba dajeeg yow ne leen law ndax booy libéré la nga ne ma jëlee bu ma ñëwee li ma fulog ñoom dem leen ngeen libéré law ndax troisième a télé dañu war a parce que Dak Médina ak Médina TV lépp fu Médina def dañ ci war a ñëw parce la xoolal lii tey nu mu rafetee macha allah xale yëpp ñëw Médina moo dëkkiwaat léegi nag li dañu bëgg autorité yëpp jot ci pour jàppale jeunesse Médina ñu bokk nay bokk bàyyi ñu ñëpp ñoo far c'est famille oui man loo wax ci Baxa ah moom bu wax ci moom fii lay faral muy grand baax Baxa ñu koy ñaanal yàlla ko yàlla xaaral àjjana yàlla am ah, njaboot gi ñaanal na ko yàlla jàpp ci téye ko. ban ngeen am ci troisième édition bi. waaw troisième édition bi mbégte rek parce que organisé ay sëñ Mamor Mbacke ñëw fi sëriñ Saliou ñëw fi xam nga sëñ Modou Mbacke ñëw fi sëñ Modou Mbacke mooy sëtu borom gaawaan xam nga sëriñ Saliou mooy sëtu sëñ Moutara Mamor Mbacke di doomu sëriñ Afia di sëtu sëriñ Fallou lii dafa neex barke alxuraanu karim man lépp lu ñu am lii moo ñu ko gënal billaay wallaay wa taalaay barke yàlla lépp lu ñu am lii moo ñu ko gënal ñu instant yi nii suñu xol dafa fees billaay la ngeen dénk waa koñ bi ak seen booy yi nga xam yéen a bokk ci organisation beeg loolu loolu la wax waaw waa koñ bi du def lu dul kontaan si ñoom parce du demee nii mais boo xoolee koñ bi ñëpp a génn maire yeeg paa yeeg ñëpp a génn kenn desul parce que loolu sëñ bee ko liggéey